ministre de l'enseignement supérieur bi fi nekkoon mérité wu ñaan nga xam ne def na fi lu ne ci lu baax ci compétence am ci xam-xamam ak ci dayo sago wàcc na tey ñu koy féliciter di ko gërëm di ko sant di ko encourager ci fu mu jëm waaye dalal jàmm nag ki fi jóge ki fi ñëw tey muy Cheikh Oumar Anne bi nga xam ne xam nañ ko bu baax mu nekkoon directeur centre des œuvres nekkoon na fi syndicaliste au niveau de SAES ba pare it professeur la à l'ESP donc mu nekk ni koo xam ne ne su ma juumulee am na expérience ci enseignement supérieur moom moo fi ñëw tey donc ñu koy dalal jàmm waaye di ko fàttali it que ne ko am na yu fi nekk yu fajuwul mooy protocole d'accord bi ñu signé ak suñu ministre l'enseignement supérieur bi fi jógee tàmbali nañoo appliquer des na yu bëri budget université yi doyul moo tax yu bëri sax mënuñu ko appliqué ba tey donc ñu ngi koy ñaan moom it mu jël ay dispositions am le plus possible nu mu gën a gaawee ndax ñu mën a jot suñu lu ñu war a jot. am na aussi benn corps bu ñu naan le corps de agents de sécurité de l'université de Dakar depuis daaw dañ leen war a jox seen rappel seen rappel de 400 000 francs jusqu'à présent kenn joxagu leen ko. parce que budget bi fi nekk université de Dakar doyul pour mu leen fay rappel boobu ñuy xaar boobu ba léegi ministère mu def benn benn benn appui pour ñooñu mën a jot seeni droit donc ministre bi fiy ñëw ñu ngi koy ñaan mu ubbi buntam pour ñëpp fas yéene liggéey déglu ku nekk bu ko defee bu soobee yàlla li fi koy def moom na ko mën a def. li ma xam ci parcours am dans l' enseignement supérieur donc doonul gan si ñun donc loolu bu fekkee ne xam-xam boobu mi ngi ci moom. ak fi mu jaar yëpp warul mën a am difficulté maintenant nag gestion bi mu am au niveau du centre des œuvres ni ngeen ko déggee nañ ko déggee amuñu ci benn firnde parce que dama yaakaar ne doomu aadama bu fekkee laa jiiñ dara yoon moo ko mën a wax te yoon bu ko waxee moo war a def li mu war a def tant nit topp ñu ko ba jàpp ko ba tëj ko ñun mënuñu considérer que ne liñ ko jiiñ moo ko def donc jusqu'à présent il bénéficie day bénéficier wu li ñu naan présomption d'innocence donc euh, mënuñu sukkandiku ci loolu pour wax ndax ne antan na lii wala antanu ko lu ñu xam ci moom daal mooy yàggal na ci cercle bi yàggal na ci enseignement supérieur war na mën a def lu toll ni ki fi jógee li mu defoon wala mu def lu ko gën